ñaari téeméeri kuréel bokk ci société civile tuddee seen boppa aar suñu élection doon tontu ci génnup njiit réew mi Macky la ñu jàpp ni fësalul benn yoon ni dina tënku ci ndigalu conseil constitutionnel ci lu soxal amalub jongante présidentielle bile. plateforme bi nag di ñaawlu doxalin boobu nga xam ne président de la république mun nañ jàpp ni dafa nekk di défier conseil constitutionnel wala sax di ko tëkku bu dee mun nañ ko waxee noonu ci wolof. ndax décision bi ñu ko jox kenn waxu ko mu dem dialoguer ak kii que ce waaye dañu ko ordonné mu jël une décision pour jàpp datu élection bi. ci lu soxal dialogue national ak élection jàpp ni ab déggoo mënu faa tukkee bu ñu xoolee wuute ga am ci diggante ña cay bokk loolee tax muy woo conseil constitutionnel ngir mu jël ay responsabilités ma. wu jiwuñu ci boobu dialogue Macky Sall na ko xamee noonu. comme conseil constitutionnel bi nga xam ne moom la ñu dënk wala moom la ñu naan moom mooy juge électoral. ñun fas nañu ko yéene jox ab leetar ndax Macky naru ko mu jël ab responsabilité am ngir euh, jàpp datu élection yi ci ni mu gën a gaawee. ci xeex bi ñu sumb ak suñu élection daal di fësal ab plan d'action. rassemblement la ñuy woote. loolu ñu ngi koy defee euh, esplanade Grand Yoff ñu ngi ciy woo askanu Sénégal bi yëpp yëpp nañu ko ñëw teewee suba it. comme ni ngeen ko xamee aar suñu élection dynamique la bi nga xam ne am na représentation fépp ci réew ci ci réew mi wàccee si dinañu def rassemblement bu mel noonu. plateforme bii di aar suñu élection di woote ab mbooloo ngir saako ci njiitu réew mi Macky Sall mu amal jongante présidentielle yi de laata ñaari fan ci weeru avril bi ñu dëgmaa la.